bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walah subhaanaka allahuma la cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilma rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk yi nuy seetaan ci seen chaîne bii di Daarakoki TV wala seen chaîne bi di Daara J TV wala ngeen di ñu topp ci seen rajo Koki FM 94 point 9 wala ngeen di ànd ak ñun ci yeneen jaaruwaay ci réseau sociaux yi nu ngi leen di nuyu di dellu siwaat di leen ndokkeel ci weeru koor wii di ñaan yàlla mu boole nu defal tawfiq comme ni ngeen ko baaxoo bis bu nekk ci weeru koor wi ci waxtu wi ngeen di ànd ak seen mbokk Alioune Badara Cissé ci seen émission jataayu koor noonu la ñu waate tey rekk ci beneen tomb bu am solo lool ci mbirum ci wàllu jullit ci ak dundam tey ak ëllëg mu di ñaan ñaan <clears throat> ñaan bopp yi lool ci diine dafa am solo lool ci dunduk nit ki dunduk jullit bi dafa am solo ci am waaye dafa am solo ci ëllëgam alaaxira bokk na ci loolu mooy ñaan ci boppam dafa di jaamu yàlla ñaan ci boppam jaamu yàlla la moo tax borom bi subhaanahu wa taala digle ko yàlla moo ñu digal ñu di ko ñaan wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum yàlla nee na dee leen ma ñaan seen borom nee na ngeen di ko ñaan dee leen ma ñaan bu ngeen ma dee ñaan ma ma di leen nangul dee leen ma ñaan ma di leen nangul yàlla dafa bëgg ku koy ñaan yàlla dafa bëgg ku koy ñaan moo tax loolu di ko ñaan dangay ngay yëgal ne yaa ngi ci ak jaamu yàlla yow mi koy ñaan yow mi ñaan sa borom tàllal say loxo sa boroom di ko ñaan na nga yëg ne lii ngay def nii dëgg la sa soxla ngay ngay ngay wut mu faju waaye lii ngay def ci boppam ak jaamu yàlla la kon ñaan da nga yëg ne ak jaamu yàlla la borom bi subhaanahu wa taala daf koo bëgg waaye itam nag dafa bëgg eh, booy ñaan nga ñaan ko moom ci boppam moo tax uddu nii la wax mooy ñaan leen ma man nga yëg ne ki ngay ñaan moom rek moo mën a ñaan moo mën moo mën a maye ndax eh, bu la seetaanee rek du sotti lu mënti doon bu la yàlla seetaanee du sotti kon booy ñaan ñaan ko noonu nga yëgee ne itam say soxla lu mu néew néew néew néew bu la yàlla bàyyeek moom rek mu jaaxal la kon da nga yëg ne kon ñaan ndekete jullit bi wala nit ki mënu koo bàyyi mënu koo ñàkk mënu koo ñàkk soxla réyul ci yàlla waaye itam jaam bi soxla lu mu néew néew bu ko ko yàlla bàyyee rek du sotti kon bu nañu xam ne ñaan kat euh, dafa bokk ci li nit ki di jëfandikoo mu doon ak jaamu yàlla waaye daf koy dañ ko koy bindal loo xam ne ni tuyaaba la koy jural ëllëg yowmal qiyaama dafa bokk ci yi ñaan tax nit ki war koo war koo jëfandikoo mooy dafa am yoo xam ne ni ñaan dong nga ca mën dara ab dogal buy ñëw ci jaam bi dogal bu naqari bu metti waroon a wàcc ci jóge asamaan ñëw ci jaam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu xamal ne ne ñaan bu tomb woon ak jaam bi ñaan ak ñaanam jóg jëm asamaan day taseeg dogal booba ci jaww ji ñu nekk fa ñoom ñaar di ñaan gi day tax dogal bi du wàcc ñu nekk fa ñoom ñaar di kërti kërti di kërti kërti ba yowmal qiyaama dogal boobee lu metti loolee waroon a agsi ci jaam bi ñaan googa moo koy téye ba du agsi kon ah, ëpp naa saa gën a de ñaan ëpp naa sàggana waaye nag ñaan moomu mbokk yi dafa am yuy tax mu mën a nangu dafa am yuy tax nit ki ñaanam mën a nangu wala gaaw a nangu loolu nag defe naa ku ko dégg war ngaa ah ne loolu de soxla naa ko ndax amul ci ñun ku soxlawut sa ñaan di nangu ku sañoon boo ñaanee rek mu nangu ku sañoon sa ñaan day gaaw a nangu am na yoo xam ne nii moo la ci mën a dimbale sa ñaan mën a gaaw a nangu la ca jiitu mooy sellal sa ñaan ngir sa boroom mooy lan mooy booy ñaan bul ñaan kudul yàlla bul ñaan kudul yàlla wax nañ ko ci aaya bi jiitu sànq wa qaala rabbukum nii seen boroom nee na dee leen ma ñaan man bu ngeen ko defee astajib lakum waaw dee leen ma ñaan man bu ngeen ko defee ma ma ma nangul leen ma may leen ma wuyu leen waaye yokk na ca inna alladina yastakbiruuna an ibadati ñi nga xam ne nii nag moom dañ maa réyee ñaan nanguwuñ may ñaan wala bu ñu ma doon ñaan sax wóoluwuñ di ma ñaan man dong faaw ñu boole ca lu bokkut ah yàlla nee na ñooñu day sa yadxuluuna jahannama daaxirin ëllëg seen kër mooy safara mooy seen kër te ak toroxtaange lañ fay duggee yàlla nu ci yàlla musal moo tax booy ñaan te bëgg sa ñaan nangu ñaanal sa boroom dong bul sellalal ko ñaan gi parce que li ngay def ak jaamu yàlla la kon li ngay def sellalal ko sa boroom waxoon nañ ko ca dañuy wax ci wàllu tawxiid wéetal boroom subhaanahu xamal ne na ñaan boroom bi dong lañ ko war a def ndax lan ak jaamu yàlla la kon euh, booy ñaan bul ñaan kenn kudul sa borom ida aradat lii fi zamaniya xaajatun waqad ashkalat fiha calaya almaqaasidu waqaftu bi baabillahi waqfata daaricin wa qultu ilaahi innani laka qaasidu walasta taraani waaqifan cinda baabi man yaquulu fataahu sayidi lyowma raaqidu nee na ida caradat li fi zamaniya xaajatun bu ma bu ma soxla gaaree ci sama dund yëf yi tar lool bunt yépp tëju maanaam jaaxle dikkal ma nu may def damay dem taxaw ci buntu bi yàlla waaye nag wax taxaw fa taxawaayu ku toroxlu nag ku jaam bu taxaw ci buntu boroomam ne lan ilaahi innani laka qaasidu wa qultu ilaahi innani laka qaasidu ne ko sama borom man kat yow dong laa am ci ku ma mën a jublu maa ngi ni jublu si naa la walasta taraani waqifan inda baabi man yaqulu fataahu sayyidil yawma raaqidu doo ab surgaam wala ab bëkk néegam génn ne la ah, sang bi kat dafa tëju wala dafa dafa fatu du ma ko def ki nga xam ne ni ay buntam saa boo fëggee mu tijjil la kooka laay dem taxaw ci ay buntam waaye du ma taxaw ci buntu koo xam ne nii bu ko neexee eh, kenn ñëw rek ne ma eh, mënu laa wala dafa fat wala dafa jàpp du ko def mooy du taxaw ci kanamu jaa buntub mbindeef waaye ci buntub sama borom laay taxaw booy ñaan sellalal ñaan gi sa borom ñaan ko moom dong loolu dana tax sa ñaan gaaw a nangu bokk na ci yi tax ñaan gaaw a nangu mooy nit ki na fexe ba dëggu digganteem ak boroomam dëggu digganteem ak boroomam te loola sorewut ak li ñu doon wax léegi sunu boroom dafa bëgg ku dëggu yàlla dafa bëgg dëgg bëgg ku dëggu dana tax foo ko soxlaa rek jot ci moom kon li ñu suñu borom dénk mooy nangeen ngeen ragal yàlla te ànd ak ña dëggu loola dana tax sa ñaan euh, di nangu bokk na ci yi tax sa ñaan mën a gaaw a nangu mooy amal kóolute ci sa borom bul teste sa borom booy ñaan sa boroom ñaan ko te jàpp ni ñaan gii day nangu ndax ki may ñaan day nangu ñaan te man ab jaamam dong laa te li ma koy ñaan am na ko man na ko te yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat neewoon na yàlla rus na moos ab jaam tàllal ko ay loxoom dëggu ca la muy def yàlla di ko delloo te tegul ca loxoom yooyu dara kon boo boo ñaanee sa boroom amal kóolu ne yàlla day nangu sa ñaan gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewoon nañu dee leen ñaan seen boroom te am kóolute ne ñaan gi day nangu udu llaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba kon bul bul làmbatu bul tester sa borom bul ñàkk yaakaar ci sa borom amal ko yàlla dana nangu ñaan bu fekkente ne yi war a nekk ci yow nekk na ci yow mooy melokaan wi nga war a mel sa borom mel nga ko kon wóolul sa borom ne day nangu sa ñaan bul ñaaw njortu ci sa borom mukk bokk na ci liy tax ñaanuk nit ki gaaw a nangu mooy digganteem ak boroomam rattax lu jiitu muy ñaan maanaa dafa bàyyi woon xel boroomam ba mu ba mu ko daataan soxla loolu mooy la ko yàlla so fa ko yàlla soxlaa ma nga woon ci moom bu ko yàlla ne jaamu ma nga woon mu nga doon góor góorlu ci jaamu boroomam kemtalaayal kàttanam bu boobaa bu demee ba am soxla rek yàlla da ko jege lool day ci moom moo tax wolof yi dañ doon wax ne jote balaa joote maanaam sa boroom fexeel nga eh, am lanteeg moom di jëflanteeg moom rafetook moom bala nga koo soxla maanaam balaa balaa soxlaa ñëw ngay ñaan na fekk sa digganteeg sa borom rattaxoon na bu boobaa waa asamaan bu ñu miinee sa allahumma bis boo demee ba jaaxle boo nee allahumma rek ah ñu ne ah baat bii de baat bu ñu miin la jaam bi mu jógee itam jaam bu ñu miin la kooku sa ñaan digganteem ak asamaan e, dara du fa dox day nangoo day gaaw gaaw a nangu incha allahu taala kon fexeel ba góor-góorlu jamono yi nga xam ne ni yaa ngi koy tal yaa ngi koy man góor-góorlul ci jox yàlla sa bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat daf nañu taarraf ila llahi fi raxa yaarifka fi shidda bu jamono yi nga xam ne ni yaa ngi ci sa jàmm mu yomb lool amoo benn jafe-jafe nee na xamal jéem a maanaam bàyyil xel sa boroom am lanteel ak sa borom tabaxal relation bi sa diggante ak sa borom bu ko defee moom sa borom yaarif ka fi shidda boo demee ba tar-tar ñëw jafe-jafe ñëw da nga yëg ne sa borom soriwu la ndekete ndekete waay la la def waayoo na la bu boobaa mooy taxaw ci sa wet loola day fekk am na lu ko jiitu woon mooy sa diggante ak sa borom defaroon nga ko bokk na ci liy tax nit ki ñaanam di gaaw a nangu mooy li muy jëfandikoo ci lekk ak ci naan na na na mel na mu war mel na see na sell na lew na teey bu ko defee rek ñaanam mën naa gaaw a nangu nay dunde lu lew nay jëfandikoo lu lew nay jëfandikoo loo xam ne nii lu teey la ndax kat inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiba yàlla dafa teey dafa sell nanguwut lu sellut du bëggut lu sellut kon eh, del jëfandikoo boo bëggee sa ñaan di gaaw a nangu li ngay def ci sa biir dee ko xool bu baax a baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu dénkoon saxaabi ba mooy atib mataamaka takun mustajaaba daawa ne woon na ko teeyalal li ngay lekk sellalal li ngay lekk boo ko defee rek sa ñaan day nangu yow foo ñaane yàlla nangu ko kon nag yàlla dafa bëgg eh, nit ki di jëfandikoo lu teey te sell te itam wax dëgg yàlla jàpp ndalal na ko ko yonent bi alayhi salaatu salaam ni yàlla li mu digal la mu digaloon yonent ya loolu digal jullit ñi la digaloon yonent ya mooy dee leen lekk ci li teey te lew te sell bu ngeen paree na ngeen jóg jëf jëfal yàlla loolu ngeen lekk ngeen reesal ko ci lu neex yàlla waaye itam nag loolu yàlla digal jullit ñi yàlla la digaloon yonent ya mooy yaa ayyuha rusulu kulu min at-tayyibaati wa amalu saaliha waaw lekk leen ci teey yàlla wërsëgal leen ko mu lew jëfandikoo jëfandikoo jëfandikoo leen loolu moo xam lekk la moo xam naan la bu ngeen paree nag liggéey fi des wa amalu saaliha fex leen bay liggéey lu baax parce que lekk gu lew lekk gu teey lekk gu sell day dimbale nit ki ci jëf jëf ja baax safaan ba it moo am kii dunde lu lewut def lu baax daf koy jafe def lu baax daf koy jafe kon loolu la yàlla dénkoon euh, yonent yi da leen lekk lu teey da leen lekk lu lew da leen lekk lu sell tey jëf nag jëfal yàlla jëf ju baax loolu la yàlla dénk itam euh, jullit ñi itam nag kulu min tayibaati ma razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum iyaahu taabudun yàlla nee na na di lekk ci li yi teey te ma wërsëgal leen ko da leen jëfandikoo ca yooya kon yi teeyul bàyyi ko fi boo bëggee sa ñaan gaaw a nangu kon del jëfandikoo li lew del jëfandikoo lu sell del jëfandikoo loo xam ne nii lu dagana jëfandikoo la ci lekk la wala ci naan la ba ci sax li ngay sol kon loolu jullit bi na ko bàyyi xel dana tax ñaanam gaaw a nangu bokk na ci yi tax ñaan gaaw a nangu mooy nag ngay dàkk waxtu yi nga xam ne nii waxtuy nangu ñaan la dëgg la yàlla jamono bu ne mi ngi fi jamono bu ne boo ko ñaanee mën na laa nangul waaye dafa am waxtu yoo xam ne nii suñu borom subhaanahu wa taala mooy gënale dafa am waxtu yoo xam ne moo ko gënale ci yeneen i waxtu ni muy jëlee nit gënale ko nit noonu la jëlee waxtu gënale ko yeneen waxtu kon tànn waxtu yooya di ca ñaan lu am solo la kon nag waxtu yooyu itam xam ko day baax bokk na ci waxtu yooyu nga xam ne nii kuy ñaan war ngaa war nga koy bàyyi xel mu bañ lay raw mooy waxtu njël waxtu njël ah nga xam ne ni fajar jotagut guddi gi màggat na li ñuy wax te fajar jotagul ba ba fajar di jot waxtu woowu mbokk yi ku am aajo rek bu waxtu woowee jóoral ko suñ borom subhaanahu wa taala sippil ko aajo yépp ci kanamam rek waxtu woowu tànnal waxtu woowu ci ñaan yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na guddi gi buñ ko xaajee ñetti xaaj buñ demee ba xaaj bu mujj ba des ci suñu borom day wàcc si ba ci asamaan si gën a jege naan waaw sama jaam yi ku may jéglu ma jéggal ko ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko nee na noonu la koy répété di ko répété di ko répété ba fajar jot te loola bis bu ne guddi gune la ko yàlla di def kon nag waxtoo ngi noonu woo xam ne lu sa aajo rëy rëy lu sa soxla rëy rëy bu jotee jógal jàpp ba euh, jullil sa borom ñaari rakkaa mu gàtt gàtt dégg ko say loxo walla wax ak moom wax ak moom wax moom te delluwaat ci xel ci yi ñu waxoon mooy boo paree nga wóolu ne lii nga def sa boroom ngay waxal te dana la nangul sa ñaan bokk na ci waxtu yooya mooy bisub ajjuma bisub ajjuma bisub nangu ñaan la waaye am na ci waxtu yoo xam ne ni lu mel ne diggante tàkkusaan gannaaw tàkkusaan ba ba tiibis jant bi di so waxtu woowu waxtu ñaan bi alayhi salaatu wasalaam nee na ajjuma am na ci waxtu woo xam ne ni jaam bi du taseeg moom di ñaan mukk lu dul ne yàlla dana nangu ñaanam googee waxtu woowa nag dañu jàpp ne waxtu tàkkusaan la maanaam gannaaw tàkkusaan la ba jant bi di sooyee timis di jot waxtu woowa lañ gën a jàpp ne moom la waaye am na ci tamit ci biir ajjuma ji jamono bi imaam toogee ci min minbar ba fa ñuy sël fa muy sëlmale julli gi waxtu woowu yépp waxtu nangu ñaan la kon moo tax léeg lu ci bàyyi imaam xutba ba toog diggante ñaari xutba yi ñuy gaawan di fi ñaan barabu nangu ñaan la barabu nangu ñaan la waaye nag jamono bi imaam di xutba moom bu kenn ñaan liñ la sant mooy nga ne tekk di ko déglu waaye bu eh, xutbaatul jamono booba profitel nga ñaan ci li nga bëgg a ñaan bu jógee nga noppiwaat bu pare ba di dugg ci julli gi biir julli gi yëpp ñaan la ba ba ñuy sëlmal waxtu woowu yëpp waxtu nangu ñaan la kon Euh, waxtu yooyu waxtu yu nangu ñaan la waaye itam bokk na ci yooyu mooy nit ki bu sujjootee bu sujjootee maanaam buy julli ba sujjoot foofu barab la boo xam ne ni barab bu gaaw a nangu ñaan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fi jaam bi di gën a jege boroomam mooy bu sujjootee nag dee leen fa ñaan ndax lu lu lu lu dëgër la lu wér la lu jàppandi la lu ñu mën leen a nangulee foofa seen ñaan kon foo tollee foofa del ñaan nangu la yàgg ci sab sujjóot nangul di ñaan foofa ñaan sa boroom ñaan nag bokk yi luy mënti doon sa soxla lu mu néew néew ñaan ko yàlla bul jàpp ne lii su ko ñaan yàlla yàlla ëpp na ñu koy ñaan lii déedéet niñ ko waxee woon ci njëlbeen gi soxla soosa lu mu tuuti tuuti bu la ko yàlla bàyyee rek mu jaaxal la kon lu mu lu sa soxla mën a toll lu mu tuuti tuuti rek ñaan ko yàlla waaye itam sa soxla lu mu rëy rëy rëy ñaan ko yàlla ndax soxla jaaxalu ko te moom dong mooy faj soxla yi am may yu yujibul mutarra ida daah am may man yujibul mutarra ida daah kan mooy mooy mooy wuju wuyu aji jaaxle yi bu ko ñaanee bu ko woowee kenn dong mooy koo xam ne ni ku jaaxle woo ko mu wuyu la muy yàlla moo tax ñu naan mm. ñaan keneen ku dul moom parce que nit moom boo ko doon ñaan léegi boo ko ñaanee ñaanaat ko ñaanaat ko boo léegi bu la séenee ngay ñëw bu la njëkkee gis ma naan am doo ko fekk yàlla nag boo ko dul ñaan boo ko dul ñaan booba lay lay la lay mere moom moom li mu bëgg mooy nga koy ñaan tey insister ci ñaan gi bul ne ñaan eh. yoon gisuma dara ñaan naa ñaari gisuma dara daa di bàyyi déedéet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon eh, ku nekk ci yéen bu ñaanee mënees na ko nangul lu mu jéggi dayo maanaam euh, ñaan naa gisuma dara ñaan naa nanguluñ ma daal di bëgg a bàyyi déedéet loolu baaxut kon del insister ci ñaan gi di ñaan sa borom te bañ a ñaan sa moroom del ñaan sa boroom waaye bul ñaan sa moroom ndax sa moroom àttanu la sa borom rek moo la àttan kon joxal sa bopp sa borom te bul jox sa bopp sa moroom sa moroom dafa soxla ku koy fajal ay soxlaam ni yow mënalu la dara mënalu la dara loolu dañ ko bàyyi xel bokk yi lu la dara ay soxlaam ci boppam daf koo jaaxal ay soxlaam ci boppam daf koo jaaxal yàlla rek a ca man dara yàlla moomee mu wéeru ji nag bu mu la fa jiitu mu la fa jiitu de ndax yéen a ca yam ni mu doone boroomam noonu la doone sa borom yow kon say soxla dee ko yóor sa borom moo tax la waykat boo xoon laa tas alanna bunayya aadama xaajatan wasali alladi abwaabuhu laa tuxjabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yusalu yaxdabu nee na laa tasalanna bunaya aadama xaajatan nee na doomu aadama bu ko bu ko ko ñaan soxla mukk bu diis say soxla naan ko yow laa ci yaakaar naan déedéet wasali alladi abwaabuhu laa tuxjabu nee nga say soxla ñaan ko kii nga xam ne nii ay buntam du tëju te kooku mooy yàlla nee na yàlla moomu fallaahu yaxdabu in tarakta su'aalahu yàlla mooy koo xam ne nii boo ko bañee ñaan mu mere la doomu aadama nag bu wa bunayyu aadama xiina yusalu yaxdabu doomu aadama nag safaan bi la moom mooy koo xam ne nii boo ko ñaanee ñaanati ko rek mu jéppi la yàlla boo ko ñaanul mu jéppi la doomu aadama nag boo koy ñaan mu jéppi la moom ñaar ñii kenn tëkkale moo tax sa soxla lu mu diis diis lu mu rëy rëy yow la jaaxal waaye jaaxalul yàlla kon say soxla jóor ko ci sa kanamu borom subhaanahu wa taala waaye nag mbokk yi melal na nga war a mel moo tax bokk na ci yiy tax ñaan gi nangu mooy nit ki bari lu muy tudd yàlla bari lu muy ñaan ci jamono yi nga xam ne nii jamono yomb yomb la di tudd yàlla lu bari yàlla daf ne fazkuruni azkurkum dee leen ma tudd leen tudd jaam boo am yàlla di ko tudd wax dëgg yàlla la lay may loola war nga caa góorgóorlu te la koy may bokk na ca yàlla ngay tudd yàlla di tudd yàlla lu bari dana tax euh, sa ñaan mën a gaaw a nangu ndax bu boobaa boo demee ba soxla sa borom boo boo ko woowee rek si gi day day gaaw lool kon loolu bokk na ci liy tax ñaan yi di nangu bokk yi nag ñu xam ne dana nangoo ci ñetti anam nit ki dana ñaan na jàpp ne ñaan googa moom nangu na mën naa ñaan nag ci misaal nit ki mën naa ñaan ne yàlla yàlla nag ma may ab cinq mille cinq mille laa bëgg ñaan ko yàlla yàlla may ko cinq mille yàlla nangu ñaan nga ñaan moom gépp ñaan gu mu mënti doon ñaan nga ko ba pare jëmmi ñaan gi rek tuyaaba la la yàlla di dencal waaye faj soxla gi nag leneen la yàlla nangu ñaan nga fajal la soxla yi jox la cinq mille boobu loola ñaan nga nangu na la nga doon ñaan moom nga gis waaye nit ki mën naa ñaan yàlla ne ko sama borom maa ngi lay ñaan nga may ma ab cinq mille nga yombalal ma cinq mille yàlla nangu ñaan gi waaye du ko jox cinq mille lu mu ko koy bu ko nangulee nu mu ko koy defal dafay fekk ne kii kat am na musiba mu jëm si woon ci kawam te bu ma ko joxoon cinq mille bi du ko tala jëfandikoo sax nag kon naa ña nangu naa ñaan waaye lan laa koy defale mooy dama ko koy fegale musiba mi jëm si woon ci kawam ko defee loolee jëm si woon ci kaw nit ki du agsi lu ko waral mën na faa naan ñaan naa nanguwul ñaan naa nanguwul fekk yàlla nangu na ko moo tax la ñu yonent bi waxoon ñaan leen yàlla te am kóolute ne am certitude ci ne nangu na loolu li koy waral mooy nga wóolu sa borom ñaan nga nangu na la nga ñaanoon gisoo ko mën naa am sax da ko gis beneen waaye gisoo ko parce que fii sa borom xam na ne moom moo xam te xam na ne fii mu nekk nii bu la joxoon cinq mille nangu sa ñaan defe ko ni ñu ko bëggee noonu rek doo ko tala jëfandikoo ndax am na leneen lu doon ñëw ci sa kaw mu téye cinq mille bi nangu na ñaan gi lam ko nangoo mooy fenqale fenqale la ko loole naroon a wàcc si ci sa kaw kon sa ñaan nangu na léeg-léeg ñaan dana nangu nit ki mën naa ñaan yàlla ne ko sama borom may ma cin mille yombalal ma cinq mille yàlla nangu ñaan gi ba noppi du ko ko jox léegi dencal ko ko ni kii kat ñaanam gii mu ma ñaan nangu naa ko waaye nag am na fu mu ko gën a soxlaa ëllëg naa ko ko dencal yàlla dencal la loola di la ko sakkanalal di la ko sakkanalal di la ko sakkanalal ba bu ëllëgee nga fekk ca moom loo xam ne nii dara waralu ko ci bariwaay lu dul ñaan googee nga ñaanoon yàlla nangul la ko moom la la dencaloon tey nga koy gën a soxla kon bul ñaan mukk te jàpp ne sa ñaan nanguwul ah kay boo ñaanee rek amal yaqiin ci ne sa ñaan yàlla nangu na ndax yàlla buur la boo xam ne ni dafa tabe buur la bu baax buur la bu yéwén boo xam ne nii du jeexal dara te li mu yor doyewu ko dara kon képp ku ko tàllali loxo te dëggu képp ku ko tàllali loxo te sellal faw loxo yooyu yàlla dana ca teg dara kon bokk suñuy soxla du jeex feeg ñi ngi ci àdduna suñuy soxla du jeex waaye ki ñu an indi ci àdduna moo ñu gàddul faj suñuy soxla kon nañu koy ñaan di ko diis suñuy soxla di sellal di wéet moom di bàyyi xel yi ñu wax ne mooy tax su ñuy ñaan mën a nangu ñu euh, yaakaar ne sunu borom subhanahu wa taala saa bu ñu ko ñaanee rek danañu nangul bu ko defee niñ ko waxee woon ca njëlbeen nañuy ñaan waaye nañuy ñaanalante ndax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne jullit bi bu ñaanalee mbokkum jullitam te yëgu ko faawu ñaan googu yàlla da koy nangu ñaan gi nga xam ne ni da nga ñaanal sa mbokkum jullit ci lum yëgut ñaan googu yàlla da koy nangu moo tax ñaanalante baax na moo tax bul ma fàtte ñaan loolu am na solo lool koo ci moom nga ne ko bul ma fàtte ci ñaan loolu am na solo lool kon jullit bi nay ñaanal boppam waaye nay ñaanal ay bokki jullitam koo xam ne nii diis na la soxlaam koo xam ne nii sa xel dem na ci moom koo xam ne nii yëg nga ne kii dafa tawat yëg nga ne kii dafa nekk ci jafe-jafe yëg nga ne kii nangam na bàyyi ko xel ci say ñaan sa mbokk la sellalal ko ñaan bàyyil ko xel defal ko ñaan sa borom subhaanahu wa taala kon yàlla nu yàlla fajal sunuy soxla àdduna ak alaaxira yàlla nu yàlla defal tawfiq fi dunia wal aaxira soxla sunu am yàlla na yàlla def ak jàpp ndal mu gaaw a faju te muy lu gën ci ñun yal na yàlla booleñ ci ñi nga xam ne nii seeni ñaan nangu daf koy yomb musal nu ci lépp luy tax ak ñaan di tag yàlla nu ci yàlla musal hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh